bëgg waxtaan ak moom ndax mbokk yi ma fàttali leen caatu montagne def na six combats six combats def am na ci cinq victoire am ci benn défaite ndaanaan la moom ma bàyyi ko mu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi caat nuyu naa la. bisimilah bisimilah ina wane yàlla ginnaaw ba ngi sant yàlla ju julli sant bi di sant si ñaari waajur mhm. di la sant yow tamit Ousseyn amuñu sa fay di nuyu waa montagne bu ma jógee waa Aslem waa Colobane Fass Dakar yëpp maa leen bëggee di la jox seen wàccuwaay di nuyu tamit sama perkat yi bu baax a baax. di nuyu Tafa di nuyu ñoom Gris Bordeaux di nuyu ñoom Dije Serigne Ndiaye amoon seen fay gars yi jàpp nañu si combat bu baax a baax maa ngi nuyu waa montagne nag bu baax a baax a baax. Euh, man de bi ma déggee montagne pour man yaa nga dëkk. Mm-hmm. mais bi ñu waxtaanee nga ne ma fas laa nekk. Mm-hmm. affaire bi xaw na ma jaaxal tuuti. Mm-hmm. la moo waraloon turu caatu montagne bi. waaw caat montagne damaa judd fekk ko fa ñu koy wax montagne moo amoon ay champion yu fa nekk yu mag yàlla def ñamay gàllankoor moom mujj ma mujjee see teew na gën si nekk xale. man ne pourquoi pas man ma ma jël turu koñ bi boot ko tuddee sama bopp caatu montagne gars yi nag di fa mbapat ba lekk ñu ànd si ak man yàlla di ma suturaal waaw ba nu ma dugg see si arène bi waaw noonu la demee. Euh, nga jël turu koñ bi du payé ko sa bopp. Mhm. tax na saaboo booy ñëw estaat. Mhm. xale yëpp dañ doon bàyyi li ñuy def ñoo gunge la. Mhm. ndax saa booy ñëw estaat damay gis. mobilisation bi day doy waar. sa diggante yow ak ñoom lan la. waaw dañoo foondoo nag ñenn ñi dañoo foondoo ñenn ñi dañoo bokkoon école xam nga maanaam lu ñu wax rek. ku nekk da nga ko jox lu mu moom daal respect bi cër bi moo waral boo xewlee ñu ngi bàyyi lépp ñëw taxaw sa bis xam nga dooleel la waaw yokk la fit xam nga gars yi daal ay borom baax lañ waaw cër laa sekk ñoom daal di leen bëggee bu baax a baax nag su mel ni waa péage Dóoru maa sant waa mafia raay ba si li bisaab zone ay ñoom paate gars yëpp maa ngi bëggee ay ñoom bak gars yëpp ay jàmbaar lañ ñu ngi téye comme normal waaw koñ bi daal gars yi amoo seen fay di leen sant bu baax a baax a baax a baax kañ nga dugg ci làmb ban at nga njëkk a takk ngemb lutte avec frappe. nag yàggu ma si. làmb yàggu ma si parce que ba ma si dugg sax su ma mën naa ne bàyyi ma xel jàpp moo ko mën ma wax man at laa dugg si làmb. parce que bàyyi ma xel wax dëgg yàlla. waaye làmb yàggu ma si dama duggoon dama dugg si làmb teg la trois combats. arène jàppuloo ban at nga dugg si làmb. wër na Serigne ma ko. bàyyi ma xel sax koo ci ñaata at nga am mu atam koo ci ne ñaata mbër nga bëreel mu ne xamuma mu ne xamuma dugg si làmb nga ne jàpp ma ko pourtant sérieux lu ma wax moo am de wër na Serigne Touba moo am mënu ma wax ban dugg si làmb parce que làmb dama dugg rek teg la trois combats si benn année. benn saison benn saison. ñoo jël meilleure révélation. trois combats mën nga ma limal ñan ak ñan nga ci bëri. waaw sama premier combat maa ngi bëri ak Ndaanaan 2. Ndaanaan 2 Ndaanaan yàlla may ma dem si kawam. sama deuxième combat mu bëri ak euh, kii mu bëri ak Maam Ngor Sarr. Mhm. yàlla may ma si ndam. sama troisième combat mu bëri ak Robert. yàlla may ma si ndam. quatrième combat. quatrième combat laa déggee mu ñor sama diggante ak bébé bu géejawaay. xale bu géejawaay bi. Mhm. daan. ma daan waaw maa koy nuyu à passage. combat teg la trois victoire ci benn mhm. daan la bi mu la daanee nga ci jàngat. waaw xam na tamit dafa dafa bokk si mbër daal. Mhm. waaw am na lu mu yokk si mbër. ndax ba ñu ñëwaatee gaa yi xam nañu changement am na daal. bi ngay bëgg ak moom lan moo la ñàkkloo combat bi. waaw làmb la rek bi si ñàkk bi si am du benn quoi. boo ñaaxee rek ñaax nga daal. da nga est-ce que nekkul da nga amoon excès de confiance bu ëpp. non xam nga làmb dafa am na mu baaxoo maanaam bisu ñaax ak bisu am du benn waaw keroog bisu def nañ lépp lu ñu war yëpp def nañ ko entraîné nañ xam nga def def nañ lu ñu war yëpp nekk ci combat bi carrément mais yàlla moo ñëw daal xaj ñu ñu te duñ koy nangu te di ko ñaanal ndam yàlla ko jég daal. nga jóge fa sa cinquième combat nga am kan. maam Moussa Gueye gi. ngeen bëgg combat bu métti te neex. waaw ñu bëgg non combat bu gaaw jàpp daan la. lamb ji motul motul deux minutes de dama ko jàpp daan. parce que boobu dama woon ne dama damaa juum. Mhm. du juum ñaari yoon daal. mais nga daanu ñëw. Mhm. kooku li nga andi supporter ñu ci bari ne booy bi fan la nekkoon. ak ñi mhm. fan lañ ko toppee. waa gars yi montagne moo yaatu rek. sa gars yi ñoo baax tamit xam nga aslem bi tamit ñoo dooleel ma c'est bu sap solida bi xam nga gaa yi zone bi yëpp ñoo wër ma ñoo dooleel ma. loolu nga gisoon instant loolu kese la ñoom lépp ñoom la nag. waaw man du si dara maa ngi sant bu baax a baax a baax tamit. mais nga daan ko. Hmm. ñu la wër combat combat xaw a jafe xaw a combat bi xaw a jafe. Hmm. koo yóbbu avance caatu montagne. Hmm. mu téye ko benn fan ñaari fan delloo benn fan ñaari fan delloo man yaakaar naa ne sax da ngay mujjee année balance. waaw sama tur dafa ma juddu si làmb parce que ñu bëri mbappa lañ ma xamee woon. waaw moo tax xoolee caat rek ñu ne la moytul boobu dafa mën a bëree dafa mën a bëree dafa a bëree moo la mën moo la mën. mais tamit entraînement daal moo gën a wóor. non non di question mystique sax entraînement bi la. waaw caat ku jaaxaar ma ne xam ne kii dafa liggéey dafa liggéey lu muy def dafa gëm foowul. waaw lu muy gëm foowul gars yi war a xam loolu foowu ma damay liggéey barki maam Cheikh Rahane Fall la ma daf ma jaral lu ne nag. mais est-ce que nga ne di nga bëri ci ci ci ci journée bi. non su dëgg nag boo xoolee sama signature sax maa ngi doomu yox maa ngi baax a baax sama avance bi nga jël. Mm-hmm. parce que samay morom kenn dong maa jël koo wax caat mu daan mu déedéet wala boo ko jëlee ba si biir delloo avance bi. Mm-hmm. mu metti ma torom nag parce que ginnaaw laa mu nit kese laa ko waa dañ ma jël ñu bëri sama morom dañ ma jël duñ ma ragal wala grand yi ñu may ma sens. Euh, nga ñëw am ki nga xamante ni mooy doomu Yoff. Mm-hmm. mais nga ñëw. Mm-hmm. defe naa ne commencement bi xawoon nga ko xeeb wala boog joxoon nga ko cër bu ëpp. ngeen bëre. nga ko imposer mais nga gis ne. am na lu nekk ci moom nga téye sa bopp. waaw xaw a xaw a xaw a calculer waat tuuti di ko déglu. xam nga làmb bu ma la sa ginnaaw ñëpp yaakaar la. doo doo ñoo bëre sa bëre sa xelu bopp. Mm-hmm. da ngay bëre lu la gaa yebe parce que ñoom ñoo soxla tamit danga nga soxlaa ñoom ñoo soxla. Mm-hmm. da nga dajale ay doomu jaamur yu bëri indi na sax ñu taxaw di la setaan bàyyi seen yitte yëpp comme looy def dafa war a wóor moo tax ma ñëw tey xeex bëre jàpp daan dem sama yoon. doom Yoff nag champion la maa koy ñaanal boo te combat yàlla ko yàlla may ndam. mais ci biir xeex bi dama gis nga doo ko ku daw gudd ko mais mu remise la nga taxaw. waaw loolu am na parce que mbër la. dañoo jàppante ma xam ne moom xam na lu nekk si man xam naa lu nekk si moom parce que mbër boo leen jàppantee rek ku si nekk di nga xam ne yow kii ah liggéey na wala liggéeyul ba ma ko jàppee xam naa ne. koy gis bi bi mu sumee ko xawoo ko woon xeeb yooyu noonu tuuti taay beeg yooyu. non du ma xeeb mbër du ma xeeb man bu may bëreeg mbër dama tegal mepp. mepp waaw. mooy onze tegal onze. parce que ñu bëri na caat day jël risque parce que lu muy may dafa bëri. non jën boo ko bëggee jàpp sax foog nga def ko mépp. Mhm, neexal ko tuuti ko tuuti may ko bunt mu am confiance. Mhm. après nga bëre ak moom mu xajal la nga dem dem sa yoon. mais ñu gis nga nga nga nga bëre moom xeex ngeen daw génn dellusiwaat ngeen jàppante. Mhm. nga caxabal mais caxabal ba dafa sooy. non caxabal bi caxabal bi neexul moo koy daan caxabal boobu du pour daan dama ko caxabal pour jot tànk bi. dama ko jaxab bu tànk bi dëgg si biir ma palaa ko dem ak moom. ok ko caxabal. waaw bu a jege si nga mën koo téye dàq ko plaqué koo mën koo ko plaqué mais xam naa ne ba ma koy caxabal loolu daanu ko moo tax boo xoolee ba ma koy caxabal dama wàcce rek yokk yokk yokk ko. Mhm, caxabal waaw teg tànk parce que luur bu ko luur boo ko bëggee daan foog nga équilibre mënoo daan luur si bëgg ko daan si dool dooleem déedéet da nga koy perte loo équilibre ànd moom sëf ko sa poids mu toog nga palaag ko dàqoo daw moom dàqoo ñu may ñu ñu ko gën a diis wopp dàqoo mënu see rëcc sama premier combat noonu laa daanee sama premier combat dàq boobu laa daanee. nga daan ko keroog kontaan victoire yokku. Mm-hmm. non kontaan waaw kontaan am na victoire tamit yokku na waaye tamit dama grand yi jël tamit ñu bëre waaw mënu ma fi nekk di bëre booy boobu léegi fii grand boobu tudd mu du ndongo bëre ak yow te loolu du yoon na grand yow yaa ma gën a xam yoonu bu baax. mais balaa ngay wax gars am na say moom yoo xamante ni ñoo ngi ci làmb te moo hmm. ngaa mën a jëflante ak ñoom. non yow tey su ma la waxee benn wax xam nga tey su ma la woon Liss Ndiago ñaata combat la am ñaata combat la am defet la am amul hmm. am benn defet. Hmm. te Liss Ndiago mu ni bëre Tapha Mbeur. waaw. gën a grand may booy loxo ñuy yegg daal man loolu am lu wax. su ma la andilee defe naa ni yow ak Guiro Séras bokk journée. ma andilee Guiro Séras lay wax. waaw bu amateur yi bëgg rek man bëgg naa ko moom bu paree rek man pare naa tamit. pare nga waaw bu amateur yi soxlaa rek moom mu pare na. kawoon na bëri na combat bu rëy am champion la tamit. champion la champion la ndaanaan la te fa nga yàgg fu ndaanaan yàgg fa nga daan ndaanaan moo tamit xam nga rek foog gannaaw yi ñëw booy gën a wane seen bopp wane tamit am na ñu nekk am ñu daal si duñ ko duñ ko fas yéene wane si làmb ji incha allah. même sa diggante ak sa diggante ak Nokia sax làmb du ko dàq ndax ay adversaire de taille ngeen. non man amateur yi bëgg rek maa seen ginnaaw ah. amateur yi bëgg rek maa seen ginnaaw. te maa ngi déglu sama grand bu baax a baax tamit. naka boo amee combat naka nga koy waajalee naka ngay naka naka ngay waaw wax dëgg yàlla sama combat lépp daal ko social la social la dama am combat gars yi jàpp si ba sëñ Tuubaa mu met day met trop nag wax dëgg yàlla. sama pere sama sama làmb yombul ndax sama làmb yombul yombul booy dinañ bëgg dem asaat booy dinañ bëgg amay billet. am ngeen am ngeen am ngeen jàppale bi ci war. wax dëgg yàlla ñoo ngi sant yàlla daal waaye jàppale bi des na waaye à passage ñoo ngi nuyu Cheikh Mbaye bu aslem ñoo ngi ko nuyu bu baax a baax a baax ba mu déggee añ def na ko ba mu déggee reer def na ko te ba mu déggee ay tiset def na ko ba mu déggee ay billet def na ko te ba mu déggee tamit ay kaar def na ko ñu bu baax a baax di ko ñaan yàlla na ko yàlla may miir aslem bi Euh, boo amoon boo amoon boo amoon ñooy sant di leen gërëm kàddu yu mujj lan lay doon. non instant bi wax dëgg yàlla su ma la waxee dëgg maa ngi sant waa Casamance waaw. yónnee nañ butéel yeeg fas yeeg. waaw <laughs> ginnaaw yàlla ñoo ma def ñoo ma doon daal lu ma doon ñoo ma ko def ginnaaw yàlla. waaw maa ngi sant bu baax a baax sant waa Thionkesin waa Bignona waa Kañabu waa Balingo fàttewuma kenn maa ngi nuyu tamit waa waa waa Maka waa Balingo waa Thionkesin Ah, di nuyu Gambie di nuyu waa Casamance bu baax a baax a baax Ziguinchor gars yi maa ngi nuyu bu baax a baax a baax parce gaay gars amoo seen fay di nuyu tami ku si mel ni tamit Ablaye Diop waa ba Ablaye borom cekkeen ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaw su ma su ma koy nuyu sax am na ñoo xam ne tamit xam nañ ko daal ba Ablaye borom cekkeen maa koy bu baax a baax a baax di ko remercier di nuyu tamit ku si mel ni Ibou maa koy nuyu Ibou borom Casamance maa koy nuyu bu baax a baax a baax. yenn gaa ama seen fay ku si mel ne seen fay waaw di nuyu bu baax a baax a baax a baax. di nuyu bu baax a baax gis ngeen comme mbër mu ndaw dafa metti bu waaw ñëwal. waaw dama nuyu parce que lu topp sama dafa mhm. waaw di nuyu mafia péage bi mafia zone de captage bi mafia Castor bi mafia Aslem bi ma Cité Bissap bi mafia Grand Dakar bi mafia Colobane bi mafia Fass bi maa ngi nuyu ñëpp. di wax caat ku si nekk mu la jox sa waa ci waay di la fekk fa nga toog di la jox loxo ñana ama fayam maa koy nuyu bu baax a baax ñana fay ko sonn si man la ama fayam di nuyu gaz waaw borom daal yu rafet yi xam nga moom ay daal yu rafet la may jox yére rafet na moom mbër yàlla sol isaan dégg maa ngi nuyu tamit sama gars yi peinture foofu ama seen fay mafia peinture ama seen fay maa ngi nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu mafia technicien la ñu ne sama ginnaaw ñoom te ama seen fay waaw ay champion lañ maa ngi leen bëggee ku si mel ne sama mag Pa Diallo maa koy bëggee bu baax a baax di sama mag mu ne Camara maa koy sant di ko gërëm ku si mel ni tamit Kara Diagne am ma fayam maa koy sant bu baax a baax a baax di nuyu perkat yi waaw perkat yi sama père la maa koy sant bu baax di nuyu tamit per Talla per Khalifa Dia Moustapha Gueye Gris Bordeaux ñoom ñëpp maa ngi ñaanal jàmm dijee ama seen booy Fass yëpp nag maa leen bu baax a baax a baax baax a baax gis ngeen booy Fass yëpp moo ngi leen bëggee li may wax ak mbër mu ndaw dafa metti ndax mbër mu ndaw bu ne mm. euh, day bëgg ku ko jàppale mm. te yaakaar naa ne waaj combat dafa metti mhm. ndax booy waaj combat dinga nga entraîné ñii dinañ jàpp ci mystique ñii jàpp ci wàllum reer ñii waa jàpp ci wàllum ndékki mhm. ba tax na nag gis ngeen dañu leen di bàyyi ñu sant gërëm mhm. di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër ci Wassare Lamb ak Jamarloo jaa ngeen jëf